ak leen tuub te dégloo أعوذ بالله من الشيطان loolu du liggéey bu mën a triser kon sëriñ bi nga def ñaan bu baax tàmm nañ jata sëñ bi ñu présente leen rek suñu mbokk journaliste yi nga xam ne sëñ bi moo ñu boole ak ñoom ñuy liggéey ak ñoom ci wàllu tasaare euh, liggéey bi ñuy def ndax ci barab bu xat lañ koy defe waaye liggéey bi war na àdduna loolu nag ñoom ñi suyee nañ ci rol bu am solo médias yi nag yi fi teew yëpp bari na lool waaye ñu jéem a tënk rek sëñ bi teew nañ Pape eh, Sayar ñëw nekk fi waaye nee na Bécaye dina ñëw waaye ñoom ñëpp benn famille lañ ku ci am image rek lu ci sa morom soxla da nga ko jox ñun xam nañ ñoom ni ñu liggéeyee ak Lamfal Lamfal waa Lamfal itam TV teew nañ fi 2STV Sen TV TFM ñoom ñëpp ñëw nañ eh, ak DTV TFM itam comme RDV suñ sa RT eh, RFM suñ sàmm mi dafay liggéey dañuy jàppale trop ci communiqué yi communiqué yu bari ñu ngi koy jàllale te duñ ci fay dara te buñ ko doon fay xaalis bari lañ ciy ja lañ ciy lañ ciy ñàkk kon loolu moom faaw ñu seere la ko ñun ñu yore mbir moomu kon loolu mooy li fi nekk sëñ bi itam dafa sàkku euh, waaw sëñ bi itam dafa sàkku itam ku ko man ci yéen rek euh, bu ñu yóbbu ndogu yi ba ñëw ngeen ñëw dogo fi waaw loolu da ko sàkku ku ko man rek euh, fàtte wu ñu itam sa xaritu bopp sëriñ moo faa sa mbay moom mi nga xam ni moom ñun ñëpp xam nañ ni mu demee ak yow moom it suba ba léegi mi ngi fi kon sëñ bi lii mooy kàddu yu ñu waroon yi ñu waroon a leeral mbooloo mi fi teew lenn li ci des ci kàddu yi nag dañ la koy bàyyee lu matul rek nga mottali ko leneen li ci des lu ñu war a sara ñu bàyyi ko ba màggalu Cheikh Amdi Seck di ñu yaatal jataay boobu waaw bisimilah. rahmaani rahim. asalaamaaleykum seen mbokkum jullit. sen mbokkum talibé Cheikh Ridial Seck Gëm bamba ñu ngi yëkëti kaddoom di yeesal nuyoom ci ñëpp di yëkëti kaddoom di yeesal cant ci ñëpp di sant ñëpp di garam ñëpp cant gi nak dana koy tàmbalee ci sëriñ Seex Fatim su na ko tuddee rek bokk yépp dugg nañ sët yépp dugg nañ taalibe yépp dugg nañ kon noo ngi leen di sant yéen ñëpp noo ngi leen di gërëm yéen ñëpp ci taxawaay bi ak taxawaay ya ko weesu yépp rawatina nag taxawaay bi nu am ci liggéey bii jàll nga xam ne mooy kër gi Cheikh Moustapha doon lëggéeyal seigne Mourtala am serigne Fall te kilifa yi toog bi ndëggal li joge nama ko jappé nu jappé ko nonu na ci taxawé ñu taxawé ko nonu pas-pas bama ci am ñu am ko nonu ittee jama ci am ñu am ci nonu ba amatu num xey amatu num seen lepp di leggey bu ba mu jamm serigne Cheikh ñi ngi lay sant di sante mbolam jabo yépp di sant yéen fédération bi ak mboolem daaira yu ne ci réew mi ak bitim réew gis nan Pastef bin jox ndigal li ak itte jin jox ndigal li gis yit jëf yin ci def ndax wax dëgg yàlla loo xam ne ñu ngi ko doon natt ci ñaari at mujj ñu koy natt ci ci ñetti at mujj ñu koy natt ci ñaari at mujj ñu doon ko natt ci ñetti mujj ñu natt ko ci juróomi weer baa lu ko manqué loolu xam nañ ni Pasti taalibe yi ak seen jofa damay wax nag toujours ni am na rek ñu ma doon nuyu ndar ab feex def lu man dong di ca yem ci ñiy yéex a xam sëñ Tuubaa ci lay def lom mënut te ne ci la la war ta yaakaar ci sëñ man non lai doke. kon noo ngi di sant ci doxeen wu rafet woo wu ngeen ànd ak noonu ndax lu ko bëgg bëgg bëgg bëgg te bu buñ gestu woon gisuñu ñu ko àndal dana metti fi noonu lool waaye nag saa yoon gestoo gis ñoo xam ne ñoo na ko gën a bëgg ba sa fu ñu toll dañu fakkatal muy seen jëmm yi seen Cheikh Fatou kon ñoo ngi leen di sant ci doxin woowu ak ci taxawaay yi ak ci pas-pas boobu bu njëkk nag damaa am nu ma daan dundee waaye léegi loolu tooy tolluwaay la woon waaye romb naa ko léegi dama daan ne fu ma masaa nekk ci ndigal yu mel noonu ku ma ca gisut damay yàkkamte laa gis ba yow waaye léegi nag bu ma nekkee ci ndigal lu mel na ku ma ci gisul bu ma la gisee su ma yoree lu ma la neexale dama la koy neexale ndax damay xam ne yokk nga saaw yi ndax sëñ bi lu mu bëgg dana sotti lu mu santaane dana sotti da lépp looloo tax ndeke kon ki yokk saw yiw ëpp naa ko loolu dañ ko war di neexal tey awma itte ci diw def na caag diw ñëw na fa li ma am itte mooy sëñ bi am li mu bëgg am na ko kon sant na ñëpp bàyyiwun kenn wallaahi góor ak jigéen mag ak ndaw ahlu rijal gépp ñoo ngi leen di maase sant di leen gërëm te di leen ñaanal tey ñaan sëñ tubaa nag taxawu ñëpp taxawu sayir ak ak baati ñaan sëñ tubaa taxawu leen yéen ñëpp taxawu sayir ak baati kenn ku ne sëñ tubaa féete ko ci jëmmam foo xam ni mënu faa féete boppam ay bokkam mënu ko faa féete ñu ngi sant bu baax ci loolu la ca topp ñu ngi sant bu baax ci bitim réew ni leen ko waxee Pastef bi ni doxee ndax bu yàggul rek dem naa fa def fa ñaari samam dikkaat waaye wax dëgg yàlla liggéey bi ñu génn lu mu toll ak bii ñuy jublu muy ndogu yi te teewul ba ma demee dafa mel ni seen Pastef daa gën a dolli daa mel ni seenu doxin daa gën a dëgër rawatina dayra sëñ Moustapha ba fa nekk dayra ansaaru diin bu sëñ Moustapha bi ne Italie ak Espagne yëpp wax dëgg yàlla ba ma demee kenn ku nekk wane nañ seeni taxawaay wane seen yéene wane seen i te loolu jëmmi Cheikh Moustapha rek tax ñu def waaye nag di sant it ay baaxal xaddim bu baax a baax ci seen doxin ci lépp lu ne nag ñu ngi yëg ñaan yin ñu ngi ñaanal ñu ngi yëg cant yin ci sant ñu ngi yëg waxtaane yin nuy waxtaane ci ak taalibe te yàlla ak sëriñ bi rek tax te noo yam képp ci sëriñ bi yam képp ci sëriñ yam képp ci taalibe te boo demee sax ñoo na ci mën foofu ba noppi ñuy doxale na kon ñu leen sant Ah, ay baa nam ko ci ne ko na sey bo sa xel dal ndax waxuma waxuma la sax na ca waye sa xel budé nek rek ci daayira bi ya nga yok ci yalla waye nak lola jëmmi jëmmi borom daayira ba tol nonu ci yalla mo tol nonu ci yalla mm. jërë ngeen jëf ñu ngi ñu ngi sant ñepp dal di di di gëreem ñepp tay nak bama sañon du gudd ci ñaari baat rek mm. bëgg wax ci ak ma riirandoo mooy ki nga xam ne dafa tuddee ab boppam ab taalibe fu mu toll di laxasaay du yor yu jikkoyam te du déglu ndigal du jëfe ndigal kooku kenn génnewu ko ci taalibe moo génn boppam mooy ma riirandoo ma riirandoo nag bàyyi kook riir mi yées it nañ ci yàlla musal ndax képp koo gis mu yées moo yées ci bokkam moo yées ci kër gam dëkk famille ba mu nekk moo fay yées dayira bu mu nekk moo fay yées kër gu mu nekk moo fay yées réew bu mu nekk kuy kuy lim ñuy yées boole ko ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.